xar yombul xar yombul àll bi moo gën seer parce que da ngay dem àll bi boo taxawee da ngay jënd xar da gis ñeenti ni sa taxaw si gannaaw boo fayee prix rek boo jàllee nga ñëw teg sa gannaaw prix bu ëpp boobu jël jël denc ko pour dem tabaski loolu moo tax xar pour ut xar foofu indi ko Dakar dafa jafe parce que yu bari dem Gambie dem Casamance yooyu day jënd dajale loolu moo tax xar yi seer wala da nga dégg foofu ay ay baat kar boo ko jëndee foofu doo ñëwee doo ko jaay boobu da jaay perte affaire bi sa àll bii lay jafe du fi waaw clients yi commencé guñu ñëw parce que aussi prix xaw na tàng tuuti waaw li tax prix tàng aussi encore tam bon ñi jëndoon dañoo jënd prix yu cher corona bi encore joué na ci parce que frontières yi ni xare daan bare ak ni ñu daan ñëwee alors am fi mu ne melul noonu te wóorul. est-ce que est-ce que xar dana am wala du am kenn mënu lu cee wax lu wóor parce que ministre bi moo war a jël en charge te bu ministre bi waxul ah ku ciy taxaw di wax leneen it te du sa rôle di nga wax loo xamante ni xamoo ko. sëñ ah, maa ngi lay dellu yow da nga wala da ngay jënd. man damay jënd di jaayaat. da ngay jënd man si département podoor laa jóge li nga fekk euh, fii ci daral bi si daral bi daral bi commencé na am de kon xam nga lu tax léegi mënoo ko xam si biir dëkk yi yëpp mbedd boo am mu ngi am loolu mooy tax li nga nattee woon daral léegi munoo ko nattee loolu parce que léegi am na yu bari si biir dëkk bi lay dem loolu ma tax doo ko mënoo ko xam waaw ñu gis euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi maanaam ci tali bi di jaay xar. Hmm. ak nekk ci daral bi di jaay ko gisee. non man kam mënuma ko gisee dara parce que moom noonu la rek ku nekk fu mu nekk foofu la war a jaay waaw fi nga nekk foofu ngay jaay. prix xar mu toll amul am na commence cent mille ak deux cent mille ak trois cent am même fukki ak nangam am na même yu fukk am na ku ku nekk kay soo ko lu su si doolam toll na dana am xaram waaw te àll bi ku ñu wok fii xar amul xar amul fii rek lay toog xamul lu nekk si àll bi. bari na xar. am bari na xar bari na xar. ma yaakaar nga xar dina dana ñëw soobee hmm. ñëw man démb laa jógee njum waaw. kon depuis bu ma jógee foofu ay oto rek moo may romb te fu ma nekkee foofu damay gis oto yu jël xar xam nga xar yi bu ñu jógee foofu du fii rek lay ñëw am na yu dem Kees am na yu dem Louga am na yu dem Ndar am na yu dem Xombol loolu moo tax munoo ko xam waaw kon xar xam am na macha allah am na. kon kon mën soobee yàlla soobee yàlla dañ tabaski tabaski bu baax. loolu moom dara amul fi fii moom foo taxaw amul. so indee xar fii fii Dakar moom xar mu ngi àll bi bu bari kon kenn mënul ñëw fii su ñëwee fii amoo foo taxaw amoo foo wàcc so wàccee bul wàcc sama bunt kër wala bul taxaw sama buntu palaas loolu rek mooy nekk fi palaas loolu rek xar moom am na kon am bu bari mënul ñëw fii pour affaire bi xar bii rek loolu rek. ñu ngi lay fay bu baax. ñu a xam tur beeg sant. waaw Sow laa tudd. dëgg la Ablaye Sow euh, ñu ñëw fii ah. hmm. euh, euh, gisee li nga xam ne moo di xar yi bari nañ. waaw ñii naan hmm. yaakaar ne xar dina am ren ci dana am mais prix bi xam naa du yomb dégg nga prix bi du yomb avec le confinement qui passé là le coronavirus la xam naa tout est changé quoi même léegi nii sax actuellement nii sax xar ñëw nañ mais dañoo xaw a seer clients yi na am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba mu jég si ñëw jënd mais soo defee loolu. difficulté bu mag ngay am soo jëndee dès maintenant moom da nga si am change quoi soo jëndee lii nga am fi nga fi nga ko def day tane ko mais soo bàyyi ba mu jeg sii rek nga ñëw fi da ngay sonal sa bokk li nga amoon yëpp nga def si xar loolu yëpp coono lay jur te mooy bokkul. yombul ku ne na xar yombul waxul lu am chaque jour muy gën a yokk Mali moo doon ñëw Mali mu ngi ñëw waaye julli yëpp léegi dañuy tàqaloo dem Mali benn bunt moo fi nekk Mali. ñun Sénégal am nañu ay xar waaye suñu xar yi boo xam nga rek boo mooy loolu quoi euh, dund bi moo jafe fi demee noonu quoi am na nag yu yu tane quoi waaye si gën a bari daal yu xar Mali daal moo fi gën a boo baax daal ci. ñoom la daal moo gën xaru Sénégal. ci bu dee dëgg neex yàlla. boo xar Sénégal baax na waaye nag yu Mali yi moom alhamdulilah. Baba Niang. Baba Niang euh, fu xar yi toll. xar yi trop parce que instant bi doon yi nii gën. ñu defar ay cent vingt cinq mille cent trente mille cent quarante mille ñuy taxaw fii léegi soo walee ñuy wër ay xarit soixante-dix quatre-vingt lañu métti loolu amatul ndax bi mooy transport bi moo seer transport bi seer na xont bi seer na kon wax dëgg yàlla mu ñëw jóge ba Jolof wala ba Fuuta ñëw fii jaay xar yomb et samit wax dëgg yàlla moom mënuñu ko moom. maa ngi tudd Yaaya Gise. Yaaya Gise ñu ñëw euh, fii euh, noo bëri na mais cher na lool lool lool lool bëri na moom mais dafa cher ah. man dama fu ñëwoon am ku may gindal xar sax mais moom prix yi ma wax dafa cher ay cent trente cent quatre vingt mais dafa cher moom. yaakaar nga bon je pense que dina wàcc xam naa dama ragal na gars yi comme xar ñëwagul te wóorul na xar dina ñëw wala du ñëw moo tax ñu aj prix yi bon ma loolu laa yaakaar waaw moo tax ñu aj prix yi parce que dañuy yaakaar na xar dina ñëw wala du ñëw moo tax ñu aj prix yi. waaw. sans la bu dee xar taba bu tax ñuy wax xar tabaski. sans la demande jëm kaw. kon bu ñu déggee sa kàddu xar yombagul de. ku ne na xar yombal waxu la lu am xar moom musul yomb te fii moom day gën a yokk chaque jour xar di gën a seer. waaye bul tiital gaa yi. ah, ah loolu loolu xam nga lan laa xam nga danga ma laaj. naa la wax lu am. ñi fii ñëw di jënd si xar kay xam nañu xar yombul. dëgg la parce que xar bu doon jar quatre-vingt mille léegi ay cent vingt mille cent dix mille lañ lay wax. waaw xar bu doon jar soixante mille léegi boo deful quatre vingt dix mille quatre vingt cinq doo ko waaw ku baax ñu ngi jaar bu baax man maa ngi tudd Abdou Aziz Fall. Hmm. waaw xar yi de échange bi wax dëgg yàlla bu dëgg rek neexee xar yi moom bariwul ba pare espace amul xar yi seer na waaw li ko waral nag mooy espace moo amatul quoi. waa daral dafa wàññeeku raay bi dafa jël li mu war a jël télé bi jël li mu war a jël moo tax daral bi wàññeeku. maa ngi tudd Amath Tidiane Sow ñu gën ma xamee si Fouta. waaw sa taxawaay fi la fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee fekk ans si daral bi yaakaar naa moom mooy mag ay at kon maa fi njëkk am naa fi 35 ans daal. no xar yi bu ñëwee bëri xar yi bëri nañu jëndkat yi ñoo amagul boo gisee xar yi ñëwaguñ xar yaa ngi si àll ñëwaguñ 100 pour cent sac ngooñ li muy jar 5000 francs doo yore 300 moto 400 moto nga war a seet ay 40 sac war ko sotti benn jour sac jar 5000 francs da day métti loolu gars yi nekk si àll yi xar dinañ ñëw kon xar nag seer nañ quoi yombaguñ nag vraiment seer nañ lool. waaw ñu ngi ñaan mu yomb mais man de man mi fi def 33 ans fi yàgg fi wax yàlla li ma gis dalul sama xel waaw ren moom li ma gis dalul waaw am na ñu ne dina ñëw mais lu ñëwul ba heure bii non gëmatuma mu ñëw quoi parce que li des bëritul cinq quinze jours mais ñu ngi ñaan ñun mu ñëw mais gëmuma ko daal. déjà dama xar dina am na am na cent mille am na trois cent mille trois sa doole fu toll rek boo ko yóbbu boo ko xoolee xaru quatre cent mille nga bëgg ko jëndee cent mille franc da ngay sonn boo yoree njëgu cent mille franc jëndee xaru cent mille franc loolu moo tax affaire bi yomb si yow yomb si ñëpp kon bëgg xar bu jël deux cent mille nga da maa ngi digal borom ku am xar daal jëndal calal jënd ku moom ku yor xaar bu ñu la tegalee dara jaayal sa xar bu kenn téye xar yi bu kenn ñàkk bay jënd xar moom lamb nag lambul wala xar day manqué loolu ay beneen wax la loolu yàlla xam loolu boo xamee bu la tegalee bénéfice cinq mille trois mille francs jaayal sa xar bu bu nekk nga teel a jënd moo gën a wóor teel a jënd ak teel a jaay man loolu laa xam si njëkk. waaw am tey jii am bés bi des na ay ñaari fan wala des na suba. waaw ñu soog a mën a ñëw jënd si lan nga leen bon ku ci am mun nga teel a ñëw nga jënd cher na nag parce que ça dépend xar yi xam naa ay quatre vingt dix la du commencé quatre vingt cinq kaw mais ku ci am xaalis am foo ko denc mun nga teel a ñëw parce que sinon bu fekkee ne xar yi ñëwul li fi nekk duñ ko nangoo jaay. li fi ne parce que wóorugul na xar dina ñëw wala du fi ñëw donc li fi nekk il faut ñu laxas si jaan ba pare. pour mun a bu a wóor na xar ñëw ñu mais bu leen wóor du ñëw duñ ko mun a wanteer. waaw xar yi am nañ ci yaakaar quoi waaw. xar yi wala bareegum. waaw instant li ñu fi jot a gis moom ah, am na ay xar mais xar yi xaw nañoo seer na quoi. ah waaw yaakaar naa mu wàcc yaakaar naa tamit du wàcc nag de ndax moom instant nii fu mu affaire am na tekk quoi am na tekk bu fi nekk ndax xar yi bëri nañ te aussi tamit ah, njëndkat yi amaguñu quoi waaw amaguñu. tey jii xar bu weex bee waaw bi xaw a damm bi xaw a damm waaw nañ ko jaay cent quatre-vingt ba deux cent quoi ba deux cent ba deux cent waaw dafa xar dafa seer nag dafa seer xar dafa seer ndax lu tax xar bi seer mooy instant yi ni gars yi jëndkat yi amaguñu te instant yi gars yi ñoo ngi fere ci loo xam ne nii ci xont bi bëri na bëriyaay boo xam ne nii jéggi na dayoo te gisagoo tamit njëkk loolu tamit da nga koy mën a sëf ci xarit pour mën a dawaat sa bénéfice quoi